Anda ak kuréel gi nga xamne ñom la denk ñuy saytu ak a toppatoo liggéeyu sëñ ak jaar-jaaram akum jangalem ci ñittal sëñ abdullah hat Jaxate nu anda hat bu so mom Bousso mutalib, anda ci ak ceeg abdullah hat bu so maam Asta ak Cheikh abdullah hat Ka ak bokk yi ñu ko andal tabarakallah nu nek ci yu magalu sëñ abdullah hat ni ñu ko baxo defé ci berne yi nga xamne bu magal gi ñew dees na len ko da berndel ci walu xam-xam ak roh muy jotaay ak waxtaan yi nga xamne dañ koy faral di def ci jikko ak xam-xam am njàng ak njàngaleem Sëriñ Abdou Lahad di ko ci bokk yi nga xamne ne amone ak mom ak jaxaso dundon ak mom amone ak joko tay nag nu ñew fi ci daara xisbu tarqiya euh, ci njital serigne Yusufa Diop xam ngeen xisbu tarqiya ak serigne Abdou Lahad kon digënté ismu tarxiya ak sëñ Abdou ak senu jondjo lañu bëgg and ak yeen inshallah allah bëgg ci waxtaan ak Serigne Youssoufa Serigne Youssoufa ginaaw ba la nuyo dalala di am mbégte ci fekk seen ci seen daara ji di rafetlu seenub liggéey ak seen taxaway ci yoonu murit fas yéene maglu màggalu Serigne Abdou seen seen xarit ba. Mm, ngeen amonu jokko ak jaxaso ci digënté Serigne ak talubem waye itam nak cofeel digënté doom ak wayjur waaye itam nak njàngale mo xamné jamono yam len fekk ak fim den indi ku bëggona laaj digënté daara hisbu tarqiya ak serigne Abdou Lahad lan nga nuy wax ci loolee jërëjëf sëriñ Abdou Lahad ñu ngi lay sante di sante ñu tedd ñi nga di yobunte sunu ziar ci kilifa ga sëñ sidi di ñaan mu yàgg fi lolou to wër limu yene ligel wayjuram mu tedd wa mu def ci lu kawé jortam di ñaanal nit magam ju tedd ji Cheikh Mamadou muntaka mu yagg fi lol yagg gindi yagg dimbali yagg wommat murit ci li nga xamne moy tax ñom am ak ëlëk di bik lol ci laaj bi ma laaj ndax seigne Abdul Ahad li mu doon ci mum dafa fété kaw li wayjur di doon ci nit ndax dafa melni ni ko don misal dama koy tuddé rek waltu bashir biyal yatama dawaman ansihim bi abahum kullahiini ndax daf ñoo fekk ñu tollu ci jamono jo xamantene sankuté waron na mëna am ci nun faw ndax lool la nasaran bi wajalon ku ne xamna euh, li fi l'islam bayyi moy nga yar sa njabot ci jangaleen alquran yar leen ci diine ñu ràññee xam li yàlla bëgg xam li mu tere xam ni ñuy doxe loolu ku ko def ci sa njaboot la ca des bu àndeek ndimbal mën naa mucc xam li muy moytu xam li def waaye njàngum nasaraan dafa doon njàng moo xamante ne bi fi tu bi ko fi tubaab yi di bàyyi dañ cee dugal tooke boo xamante ne liñ ci jublu mooy jullit ñi umpale seen diine euh, nga xam ne amul benn école ci réew mi boo xam ne bi fi tubaab yi di jógee di dem ci indépendance yi bàyyi nañ fi école bo xamantene dina la xamal sa bop lolou kon doyna ci teunk te bu umpelé sa bop ginaaw bo xamé sa bop xam suñu borom kon bu umpelé sa bop <laughs> dara jaru ko waliyaasu billah euh nak 1968 la toog contexte bi di contexte bo xamantene contexte bu yéme la dafa ñew comme ko xamné dafa fekk seytaane fiir ab fiiram ba mu jekk waajale ko noo xamante ne danaa lislaam yow de jàmbaar nga woon amoon nga ay daaray tarbiya fu ne yaa ngi fa doon def ay jàngu di góorgóorlu di yar nit ñi <laughs> waaye tey jii de ngay xam ne moom sa liggéey dootul yomb moom dafa mel ni seytaane waajoon na loolu euh, si Abdou Lahad nag ñëw ñëwin woo xam ne dafa mel ni tarbiya lu mu baax baax baax bokk ci ngànnaay yi sëñ Tuubaa tarxiya da cee bokk te tarxiya doon loo xamante ne euh, ñun bi ñu tudd xisbu tarxiya ci sëñ Saaliw la sëñ Abdul Ahad ànd nañoo moom fukki at ak ñeent bis sax ci tubaab Belal am na mag moo xam ne dafa toog ci wetam sëñ Aatu toog nii ndeysaan am na yàlla suñu borom dolli yërmande ak njëggal ci moom ci barkeb kilifaam googu di Cheikh Abdul Ahad ak la mu ko jaraloon Euh, mu toog nii mag ñi daal di wax sëriñ bi ne ko Mbàkke ñii de utalugoo leen tur boobu daayira étudiant murid lañ wax mu ne ko sa yoon newu ci bis bu ñu ko waree am rek dinañ ko am kon tur bi moom xamoon na ne daayira étudiant murid lañu waroon jëkk a tudd dox nañ ci ak moom fukki at ak ñeent yoo xam ne mos a tudd nen lu daayira étudiant murid mbooloo nag mu amul tur ci yoon wi miinuñu ko waaye boobu waxtu bi ab denc la def dugal ci biir université loo xam ne dafa mel ne lu ko làq loolu mu làqoon nag wax dëgg yàlla du dencug como dencug kilifa goo xamante ne ku jubóog boromam la la mu làqoon moo màgg ba agsi ci loxol sëñ Saliou mu ne seen kuréel bi tuddee naa ko xisbu tarxiya muy dox ba tey jii ñu xam ne lii lu sëñ Tuubaa fàggu la woon kon nun ñii ñëpp di ci de dañ ciy jëriñu rek waaye doonuñ ci dara ndax pàggutee fu sëriñ bi la si Abdoulaye contexte bi mu ñëwee dafa def révolution culturelle révolution culturelle mooy euh, nit ñi daf leen xamal seen bopp waaye ni mu leen ko xamalee moo original ndax tey jii nit bu fekkente ne bañkat la booy nuru nuru lu ab naar di ko addi si lislaam danaan kii dafa maa bëgg doon loo am naar wala dafa maa bëgg a defu poroñ booy nuru nuru lu tubaab ñëw di ko jàngal tubaab dafa naan kii day roy roy lu nasaraan kon wa maa arsalnaa min rasulin illaa bi lisaani qawmi yi dafa am solo ay nit booy wax ak ñoom da nga leen di wan loo xamante ne di dinañ ci gis seen bopp sëñ Abdou Lahad noonu la meloon bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lam cay teg yow boo ko déggee ni muy àggee ci sa ruu loolu moo lay wan ne kii moo mën a doon système de valeur mooy ku xool ci moom dinga dem lolou moy simple ci lolou ci lañu ñu yow lu diiné l'islam ci no xamantene ci ay waxi wolof yu leer nañ nan la gëm yalla ak sarti gëm yalla jàngal la taqwa ragal yalla ne la ragal yalla ak nuñ ko mëna déggé nangam rek la dara lu lu ñu jëmbat ci xol diko ko ndoxum imtisaalul awaamiri wa tinabul manahi ah mune ne def garab ga dana mag dana meñ te la cay juddoo ci muy muy muy ci garab googee kenn mun ta xam nu mu toll ci loo xamante adduna ak àlaxira di la jàngal ngor di la jàngal lan mooy julli di la jàngal lan mooy mooy jom di la jàngal tamit bëgg yàlla di la xamal ne la ragal yàlla des na ko wax topp yàlla des na ko wax jaamu yàlla des na ko wax waaye dara mënu cee sotti ndar de du ginnaaw boo bëggee yàlla ba noppi ñu koy wax ñu xam ne nekkate loo bëgg it da koy topp da nga cay ne nga xam ne léegi sa yitte dootul nga ne ci sëriñ bi tey ji nekk ci leneen da ngay wan ginnaaw lépp moo tax li sëñ Muntaxa di wax naan sëñ Tuubaa kenn mënu koo liggéeyal ndare du ginnaaw da nga wan ginnaaw àdduna noppi door a wutali sëñ Tuubaa loolu sëñ Blaat daf ñoo sóob ci yoon woowu di ñu ak jaayante jaayante it doon loo xam ne ci lañ xam ne nekkati yoonu murit mooy lii di ñu xamal it lan mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax liggéeyal sëriñ Tuubaa dem na ba xamal ñu ci lu tax ñu xam ne Eh, lepp lu bax mën nañ ko def ni ko jullit yëpp di defee ndax mom la seigne touba bëgg waaye suñu yaakaar ak suñu ngëm ak suñu wolu mën na dalé fu di bërëng waaye bu agsee ci sëñ Tuubaa fa la yam lool lepp seigne blat di ko def muy lo xamné dafa yémé yamu ci di soppi ndax tay yi bu fekkente ne eh, nit ki yaakaar na ne amna na jikko yo xam nasarani ñu ngi koy yor wala nit ñi nga xam ay nit àdduna lañ dañ koy def mu wan la ne la Touba gii de tere naa fi nangam tere naa fi nangam tere naa fi nangam ngay xam ne ah yooyu gi tere Touba de kon yow murit ginnaaw fu mu dëkk Touba la ko bëgg a jàppe kon da ko faa war a moytu nga commencé xam ne ah nekkati kon nii la murit war a mel parce que l'islam mënta yam ci moral maanaam ci digg naan góorgóorlu leen nangam naam ci moral rek loolu du sotti foofu mu am ab atte boo xam ne nangam ko ko def nangam ndax seen laat àggoon na ci daan wax naan naan euh, wala taaxus ko xima raafa yàlla sunu borom mi koy wax moo ëpp yërmande ñëpp waaye xam ne ku tooñ waree su koo yërëm a tax xam nga loolu lépp day jàngale ne euh, ku ñu war a atte bu ñu ko war a teg yoon nañ ko teg ci yoon loolu si lam moo ñu ko jàngal di te it doon koo xam ne euh, ba ci sax nooy takkee soxna ba ci moo koy seetalee ñun tey jii ku ñëw ci biir daara Hizbut Tarqiyyah li nga xam ne bare na ñun lu ñuy dégg nit ñi di ko def ñun xamuñu loolu ndax sëñ Abdou jox na sëñ aatu soxna ba mu koy fas sëñ aatu ko man loolu ci lañ njëkk xam ne nekkate kilifa day fasal ki mu yilif ndax tànn ki nga xam ne mooy sa kilifa moo gën sa tànn bopp alxeyr fi maxtaara lawul muxtaaru xa nga xam ne yow tey lu baax li mooy li nga tànnal waaye nekkul ci li nga tànnal sa bopp loolu yemu ci ñoo ko moo ko seetal moom sëñ Abdoulaye woo ñu ñu jóge Ndakaaru ñëw fii ci mbaar ma mbaar moom it ba ñu fa ñëwee toog na jàng kaamil suñu kanam ñun mu yor suñu kuréel xasida di jàng nga xam ne euh, bernde yeeg teranga yi al xasidaa ko gunge ba jant bi soo xewi aada yi ak yi nga xam ne moom lañ ciy def ak ay làng ay ay ay ay yebbeeg yu yëpp mu wan nañu loolu du doxalin loolu suñu Ibrahima mo ñu ci formé euh, jël soxna yi diko jël dal di jël li nga xamné ne témir la lan wax wala témir ak fuk ci li nga xamné ne mooy cen te it jàngale ne wareesu la té soxna si ngir naan cen gi matul ngir ñu xamné rek dañ koy yombal ngir barké am ci kon loolu lepp mo nu ko jàngal mais yamu ci simple da fay ko ne euh, ni nimu ñu melal ñun firiwu ne dafa ne sol leen sama yéré yi wala mel leen ni man ni déedéet dañ ko gis bu wolof rek gis ko bu murite rek ñu bëgg ko bëgg gi nak indi li lepp waaw kon Hizbut Tarqiyyah firiwul ne ku fi ne euh, da ngay sol baylat par force lol déedéet bëgg gi mo doon lo xamantene ne bëgg bëgg li dax euh, dafa nuru yefi murit ñu jëk dalal ci Touba fatlu dimbali dinu bernel Cheikh euh bu ñewan kërëm berne ci lañ ko jëk xam daf lay téral ba yow doo bëgg gëj Touba euh Abdou Lahad man yaakar na né euh, man mi sax ñoy génération bi ñew ginnaw ñom sëñ aatu ndax ñoo sësoon ci ñom waaye sumay fatlu ko ay 1982 83 84 wax dëgg Yalla suma ñewan Touba su ma ba fekk ñom sëñ Abdou Hadja Dia buntu bi bi euh, Euh, buntu kër gi ci niimaa yi rek nga daan mën a fanaan ci penc mi ndax amuñu woon fenn moo tax ma tàmbalee samay wax ne moom daf ñoo fekk ñu jirim xamuñu kenn amuñu kenn mu fat ñu dimbali ñu dalal ñu daal ñuy mandal euh, reggal ñu dimbali ñu ci melukaanu murit saadix ba tey ji kenn ku baax ku ne seexlu wooñu ñu baax ñi bu ñu ñàkkee seexlu daf ñoo melal no xamantene gis nañ ci ne lii gay seigne touba la kon euh, sëñ Abdou blad amuñu ak payam seigne blad tay ji su dé ci walu éducation aduna sepp ñoko wara sargal ndax éducation da ngay melal nit no xamantene day xam bopam bu nopi amal nit ñi njëriñ waye environnement tamit seigne blad tay ji senegal buñ doon jox Euh, ay raaya ci wàllu environnement mën nañ koo jox Sëñ Abdou Lahad ndax gis nga jumaa ji ñun ñi fi daan fekk place bi ñu daan wax l'ONU nga xam ne ay niimaa la ñu fay toog di waxtaan lu seen yoon ne ak lu seen yoon newul Sëñ Abdou Lahad ko fi jëlee ah daal di euh, indi ay tàndarma jamono jooju mu koy def ñu ngi naan ndax tàndarma mën naa sax ci Touba moom kon euh, xeex boobu pour wane ne tubaa ni ñu jàppee ndax nanga mën na fi am wala nanga mënu fi am amul lu fi mënta am ci lu baax moom loolu la jëkk wane te loolu waa Touba suñu góor góorgóorloo suivre exemple boobu mais boo doxee tuuti xool Madinatul a xool Touba war naa nuroo ndax boo ko xoolee ci jumaa ji xam ne ñiy tabax jumaa ji ñu ngi koy bàyyi xel nuroo gi soo ko xoolee ci liggéey jëfi xalifa sëñ Touba yi xam ne ñu ngi bàyyi xel lépp ba ci nit ñuy rëdd ni ñuy génne mbedd yi ak ñuy doxalee dëkk bi dara lañ ci bàyyiwul lépp benn kon tey yi murit bu ne jëlal loolu teg ko ci sa kanam loolu defe naa lu ci am solo la pour ñu xam ne kookoy Sëñ Abdou laat euh, ci gàttal daal Sëñ Abdou Lahad dafa doonoon koo xam ne mu jaddit la ndax tamit euh, man wàllu baatin xaw ma ci dara te waa kër Sëñ Tubaa jàpp naa ne kenn ku ci ne euh, aw xët nga yor woo xam ne programme Sëñ Tubaa la waaye moom de xët bi mu tombeel euh, bi mu demee ba ama tasin am na lu mu wax te ama tasin njëlbeenu xarnu la te ku ne xam na ne xut bu zamaan euh, suñu borom wax na ne day yeesal lislaam te ni ñu koy yeesalee ci njëlbeenu xarnu bu ne bu tombeek moom euh, kilifa yi bare ci àdduna moom wax ne ci wàccaayu màggal gi daane ne sama kàddu yi de maa ngi koy tàmbalee ci aouzu billahi mina sheytani rajim bismillahi rahmani rahim li kulli ummatin jaxalnaa man sakan hum naasiku falaa yunaasikunnaka fil amr wad'u ilaa rabbika innaka la'alaa hudan mustaqim ak wa li kulli ummatin jaxalnaa man sakan li yaskuru smallahi alaa maa razaqahum min bahimatil an'aami fa ilaahukum wa ilaahun waahidu falahu aslimu wa bashiril muxbitiina allaziina izaa zukira llaahu wajilat quluubuhum wa saabiriina alaa maa asaabahum wal muqiimiina salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun sadaqallaahul aziim ma dellu teg ca waxi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne tuubaa li man balaxal mi ataraabiata baadal alf sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di ma dellu teg ci nag waxi xadiim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne awalu ma taraabil xadiimu taalluqun bi man law taqdiimu wa azharal xidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi mun salixan fii jaysasi min xayri rabbil wara xadiimu usni xayri وأدخل الله في قلوب من تسببوا في نقل ذاك زمن إخراجه إلى البلاد النائية ونال فيها فوق سمي سعيا كون لولو لاي تامبلي سامي واخ تي ووتي ماغال جي تي نيل بي نو خارنو بي ني نك دي ام تاسيت لام تا تك ساخ ليب دوما تي نيو واي لي تاخ ما واخ لي كو يالا سوني بوروم ديفول تي ياو غا بوك تي نيغا خامني دا نيي ييسال الاسلام دو واخي ني sunu gëstukatu hadis yi léeg-léeg nga gis ñu xool hadis yi naan ndax hadis bi euh, wér naa wérul xam nga sëñ Tuubaa euh, boroom xam-xam yi ci àdduna sépp war nañ koo respecté te it respecté nañ ko ndax axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku koy wax doo taxaw naan da ngay lijjanti lii mu wax nu mu demee ak déet ndax dafa taxawoon a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te cërub xadimu rasul Euh, ndax man euh, wax dëgg yàlla ab dong rek laa fas yéene doon euh, bu dara desul lu wéetaay naroon naroon amit boroom xam-xam yi mën na leen bàyyi seen kees ma dem ci keesu dongo yi ak keesu daanukat yi ndax wóor na ma ne yonent yi nga xam ne ñu jiitu woon ñëw kenn ku ci ne loo baax baax baax rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo la yónni lu dëgg mooy xaatimu nabiyyin wa imaamul mursalin waaye tamit ah, mooy seen kilifa ñoom ñëpp kenn nattable wu ko kenn ku ci ne seexlu woo tudd xaadimu rasul dangaa ñëw jiitu ko moo tax mënoo wax loolu ndax xamu ko seen naa instant mi nga xam ne sax mënu na mënoon naa yëgle ne mi ngi ñëw te tur sàngam lay tudd def na ko waaye nag ñi ñëw ginnaawam gisuma ci cër bu gën a kawe cër bi sëñ Tuubaa jël mooy bëgg yonent bi di ko liggéeyal abdullahi wa xadimu rasul kon kookee su waxee ne euh, njëlbeenu xarnu bii di ama tasin si si Abdoulaye daal di wax ne ama assassine ci la yoonu murid juddu dëpp hadis boobu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxoon ne Touba ni man balaxal mi atarabita bada alf na ko borom xam-xam yi ñeme jarta ragal waaye di xool naa hadis bi ndax kii naag loolu moom lijjanti àdduna ni mu lay gisee moo gën waaye lijjanti ni la yàlla di gisee moo gën a wóor balaa ngay lijjanti ba àdduna na nañ lay gisee ak loolu amul solo kon loolu dama ko ci doon dugal rek di dellu di santaat Euh, tey tey wax ne Sëñ moo ñu defal lépp moo ñu teg ci yoon woo xam ne it ñu xam ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa dañoo war a topp ci ginnaaw ndax Sëñ Blaat moo njëkk booleeg sëñ Saaliw dafa mel nii boobu ñu ngi junj loo xam ne ak seekul ndax ànd nañu ak sëñ Abdou Khader lu tolloog at waaye sëñ Saaliw moom ba ñu liggéeyee ay nu raxmati dafa ne dama leen di yebal ngeen ànd ak sëñ Saaliw ci gàmmu gi ndax dama bëgg mu ñaanal leen ñu ànd ak moom gàmmu loolu kon moom defal nañu ko sëñ Aatu it li tax ma su ma ci tuddee ñaari baat rek dina dina wane ne si sëñ Abdou Lahat ñu defal lépp mës na ko téye tubaab Belel téye ko diir bu yàgg sax waaye ba mu koy yeewi ndax boobu benn mbubb la yor waaye ba mu koy yeewi nee ko xanaa de yaakaar nga ne li mën a téye ba àdduna nga yaakaar ne ma laa fàtte mu ne ko dee mu ne ko dama doon suudee sa diggante ak sëñ tubaab ba dara du ko mën a yàq kooku nag cëram ci sunu boroom cër bu kawe la suude googu yàlla nañu ko suñu borom wàll ñun ñëpp ñu am ko ndax suude suñu diggante sëñ Tuubaa lañ bëgg lii daal laa laa ci mënoon a junj sama xam naa ne li wax naan dafay loo xam ne li ma ci dab mooy la ma wax rek fa kay fa ax wi madhan li mox yi wal madhu mox yi li loo xalaay du ko mën euh, laakin wanaa dëxër an am nday suxaraa wañeel asaa bi an masil li jërmi sama ni ma lottee ci laal asamaan noonu laa lottee ci wax si sablaat kon dama ci barkeelu rek ah, tabaarakallah nañu ko yàlla fayal ci barkeelu sëñ sëñ Tuubaa tabaarakallah tabaarakallah sëriñ Yusufa ci waxtaan bu am solo woowu nga nu indil ci sëriñ Abdou Lahad muy njàngale mu yaatu moo xam ne làmboo na ay njariñ yu bari ñu mën cee jànge lu bari man cee dégg yéen lu bari ndax fi mu tàmbaleeg yéen yarkat dëgg ak nitu yàlla dëgg moo fa mën a tàmbaleeg nit ci tolluwaay boobu tolluwaayu jamono jooju ak tolluwaay boobu nga xam ne ay étudiants jàngkati tubaab te booba ndamoo loolu dafa xewoon mu fekk leen ci barab boobu xëcc leen yéen itam ngeen nangu mu xëcc leen ngeen dégg am njàngaleem doy na ci sëkk ngir roy ko ak dégg ko mooy ku leen xool bu ñëwoon tey képp ko di murit bërëb bërëb sangam ngay fanane mana lay du len ci genné kon ñëmé gi lolu ci jankatu tubaab ba mu sol col gu melni di dem ci l'école yi di dellu ci dindi ci ñom ak yaras yaras gogu mu dindi ci ñom ak dégg ci yeen ak dégg ko dégg ba ba ba jëlum jangalem tabax ci lu melni nii dégg ngeen dégg serigne Abdou am jangalem mo indi tay daire isbu Tarqiyyah bam ag fi bam ba ci aduna bi ba nit ñu bare bare ku gis nangu ni nit ñu bax ngi ni nit ñu juba ngi ni ay murit ngi ni nit ñu ñak caaxaan a ngi ni kon ci ñàkk caaxaanam googee ca la len yar leneen li ci am solo bokku na ci mana alphabétisation bi xew sib had dafa rawon jamono ni len jangal len xam-xam ci lak wolof di len ko jox ab sa wolof bu mag la won ci gogu anam rek mm-hmm. yi yi jallale wolof yi ñu ko daan def ni muy leeree ak li nga fi nettali ci njëlbeen gi ni mu leen doon jàngalee tawxiid gëm yàlla jaxasoo loolu lépp mu leen ko wax ci wolof yéen itam ngeen dégg ko taatan ko ak discours yi mokkal gi ko isbu tarxee di mokkal yéem ñu bare bari ba ci tuut tànk yi loolu it di lu am solo loo xam ne man man def naa wax ne daal Hizbut Tarqiyyah daaree la am njàngaleem la <laughs> jërëjëf kon tabaarakallaahu li nga fi génne am na solo lool xam naa lépp sax doo ko mën a wax ndax si Hizbut Tarqiyyah ak Sëñ Abdou Lahad moom moom tabaarakallaahu xam naa kon dañuy ñëw rek ci tombu ñaareel bi mu war a jëm ci Sëñ Abdou ak alxuraan ak Sëñ Abdou ak xasida ndax at mu jot dañ koy gungee wóppa wópp mooy tem tem bu muy àndal tem ren bi mi ngi jëm ci ak doon ci ak yan nga ci am ci dolli si euh, Abdou Lahad jërëjëf sëñ euh, Abdou Lahad Ka euh, loolu lu yomb wax la xam nga nit ñu ne lay seen patrimoine suñ ko xamul dañuy wax développement waaye duñ développé ko ndax booy développé wu da nga war a développé wu ci li nga xam ne moom nga am ñun lii suñu alal nga xam ne mooy suñu patrimoine alxuraan la ci la xasida yi jóge loolu muy loo xamante ne tey jii defe naa résultat yu yi am ci àdduna sépp ñuy gis waa Touba di di di di raw ci mokkal alxuraan tari alxuraan bind alxuraan loolu ay firnde la ci waaye day tàmbali rek ndax ñooñu ni ñu leen war a jàppale ak ni ñu leen war a gàttandoog ni ñu leen war a ni ñu war a promouvoir loolu sax xëñ na acteur yëpp ñëwuñu waaye day pàggutee fu sëriñ bi sëñ Abdou mën nañu wax ne dafa créer won ben industrie autour du Coran et des xasaayid industrie moy lan xam nga tay ji bu fekkente ne Sëñ mom en 1977 faggu na daré kaamil muy innovation Ken xamul won luy daré kaamil mu fagu daré kaamil muy bibliothèque bo xamantene Al alxuraan ko tax ak xasaayid serigne touba ak xam-xam yi nga xam l'islam lool bimu ko fago gis nañu kaamilu alxuraan yi nga xam ne ci biir yoonu murit ci ay daara yi nga xam ne mooy daara yi cosaan yi ñi daan bindi kaamil di bind mbind moo xamante ne tey jii euh, mooy mbind yi nga xam ne tey jii mooy référence ci yoon wi ba tey loolu sëñ Abdoulaye liggéey na ci loo xam ne ut ay machine di ko móol créer benn industrie boo xamante ne jël alalam di ko di ko xëpp ñi nga xam ne ñooy bind alxuraan loolu noonu la ñuy développer am réew su ko defee ñiy bind alxuraan daal di xam ne bind alxuraan nekkete njëriñal àdduna la ak njëriñal alaaxira loolu sëñ Tuubaa da ko daan def sëñ Musaa Ka mi ngi koy wax nga xam ne mbaakoo la fu ne di bind kaamil di ko yët xam nga loolu dafa am solo muy am ñuy defar ay lal yoo xam ne di defar ay kër di defar ay jaafere di defar ay ay feggu di di di defar ay encre yoo xamante ne encre de Chine bii ngay gis nii am na ay xeeti xereñ yoo xam ne ci xeeti gàncax yi amoon ci réew mi ñu ngi ci daan liggéey xeeti euh, xeeti daa daay pour daaju yooleet daay yu yëpp mu doon industrie boo xamante ne dafa doonoon lu am solo loolu sëñ Tuubaa defoon nag Sëñ Abdul daf ko yeesalaat bi mu ko yeesalaatee kon ñëpp teg nañ ci seen bët ut ay machine yu mool daaree kaamil ñëw taxaw mu doon loo xam ne euh, dara gënu ko féete kaw waaye yamu ci xaside yi ñu di ko bind muy liggéeyloo ay mag ñoo xamante ne liggéey yu mucc ayib lañ doon def boo jëlee ko mel ni sëñ Modou Diagne ci biir daare kaamil la mu ko doon liggéeyloo di ko toppaloo ci téere yi nga xam ne la sëñ Fallou doon def doon ko liggéeyloo euh, ku mel ni sëñ Jatara ak ñeneen ak ñeneen loolu dafay liggéey boo xam ne mooy promotion moo tax tey ji ñu ngi gisee kenn ku ne bu la neexee nga muul benn téere te ñi koy topp doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko xool loolu xalifa sëñ Tuubaa yi naka jekk dañ koy bañ di ko taxaw di bëgg am ñoo xam ne ñooy topp téere yi ba mu wóor la ne lii mooy li sëñ Tuubaa bind ñu topp ko ba mu wow ñu door koo mën a tasaare loolu jamono jooju sëñ Blaat def na ko muul na ay diiwaan yoo xam ne dafa dajale ñi ko war a dajale daje ko dajale ko ñi ko war a topp topp ko mu def ko muul ko indi ko daaray kaamil def ko fa ci ci kii yi nga xam ne kenn du ne diwaan yi moo xam salawaat diwaanu quraaniya mooy fulkul masoon ak yooyu yëpp euh, euh, bi xayri ayatul quraaniya ak lépp mu liggéey ko noo xamante ne da nga xam ne lii liggéey liggéey bu ko ëpp solo ci toolub Sëñ Tuubaa yamu ci euh, xasaayit yi rek njàngin ku ne xam ne nañ daan jàngee ci jamonoy sëñ mag bi noo gën a dem ginnaaw bi dañuy jànkat yi di tàmbale di ci dugal walu aada aada nak lele tujuh toujours bu deme ba tollu fenn fi yeesal da dul meuna a motax ku melni ni sëñ Abdou Lahad bi bis dikkee bis euh, lo na ko Mahib gey liggey bu mag bo xamne seigne Modou Mamou ñang la ut am magnétophone bu mag mu enregistrer seigne Mahib ñang mo xamantene da ko ne na ngeen ko daan jàngee ci seigne mag bi bu ca dara doliku bu ca dara wañiku ndax boobu mel num ma may moo ci des ca ña ca bokkoon ci wuur bu jëkk ba daan jàngal sëñ Tuubaa boobu mu jàng ko mais njàng moomu tey jii moom la Hizbut Tarqiyyah ba tax ñu naan Hizbut Tarqiyyah njàngum xasida moom Hizbut Tarqiyyah waaye Hizbut Tarqiyyah dafa delluwaat rek ci cosaanal njàngum sëñ Masamba loolu sëñ Blaat moo ko enregistré moo ko def pour bàyyee ñu fi héritage boo xam ne buggul mu réer li ma ciy teg mooy sëñ Blaat ak jaayante gis nga jaayante tudd naa ko sànq waaye dafa am lu am solo lu mu wan murid yi nee na ni gars yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon rek lañ def anfusahum wa amwaaluhum lañ ko jox dëgg euh, loolu leeral na ci lu bari ndax neen sëñ Tuubaa dafa wax ne def ko ni saaba yi defoon yonent bi mooy li jafe waaye li wóor daal képp ku def ni yi defoon yonent bi mu defal la li yonent bi defaloon saaba yi loolu wax nañu ko mm-hmm. jaayante gi itam mu leeral nu ne ñu euh, bu leen kenn jàppe ay daanukat ba tax ngeen bàyyi lii ndax saxaaba yi nii lañ meloon ndax saxaaba yi ponk lislaam yëpp dañ cee nekkoon muy gëm yàlla ak di jëf li nga xam ne moom lañ lislaam santaane waaye bi ñu jëfoon lépp ba noppi nag dañoo wax ak yonent bi ne ko ah daje mel ni yow li gën daal nañ jaayanteek yow jox la suñu bakken jox la suñu alal ah ngir nga warlul ñu àjjana mu ne leen loolu day amewu ma tontu li suñu borom amee tontu li suñu borom tontu ne inna laa istare minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum ba aaya ji àgg kon jaayante googu sunu borom ba mu ko nangoo ba noppi daf leen laaj der bakkan yi ak alal ji mu tekki ne kilifa gu toll ni suñu borom la mu la dig dina la ko jox waaye la mu jënd ci yow dana la ko dina la ko laaj Lolo waral ah, mu ne ba lolo amé rek ñu tek ci ab tuur ju tek ci dir bu gatt mu sak aw lay indi badar kon suñu xare wu len won badar ngir tuur seen deret dafa bëggoon sak aw lay ngir defal len ngir ñu def lañu wax ba mom bu defal len la mu wax kon lolu muy lu leer yamu ci mu jangalat ñu xam nga foofu loolu boo nee badar euh, bayatul xarb la lay la lay delloo ma njaayante gi jëkk gi nga xamante ne l'islam dalay lay jaral waaye dafa am geneen jaayante goo xam ne mooy yoonu murit gi mooy bañ demee ba Hudaybiya war a jàng nag li nga xam ne mooy ba mu leen waxee ne xuddimtu min al jihaadil asxari ila al jihaadil akbari nga xam ne leneen la ba ñëwaatee foofu mu ne euh, dañoo ànd ak moom mu ne leen laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ak la ca topp di leen wan loo xamante ne boo ko xoolee da nga naan kon euh, maam Cheikh Ibra nii de nii muy doxe kon daa dégg doxinu saaba yi yaru murit yaru murit mhm. ca Mbàkke Kajoor mhm. kon simple la dafa bañ ñu complexé mhm. ndax ñun murit boo moytuwul complexé dalay yomb ci addis yu la di addis di la indi ay wax yoo xamante ne loolu jotewul dara ak yuqub lislaam lislaam da ngay boole fa inni ala sharihatul mutahara wa ala al haqiqatul munawara mu ne sharihatul mutahara maa fil kutubil munazzala waa wal xaqiqatul munawara maa sabata fi lawhil mahfuz sawaun nazala fil kitab aw lam yanzil bihi loolu kon dafa doon doxin boo xamante ne nit ñi dañ koy xam xam ne yaru murit du ci mën a ñàkk euh, mu jàngal ñu it infaax ba pare jëf ko c'est un milliard cinq cent millions moo ko jëkk woote ci bu gàtt mu daje euh, jëm ci liggéey jumaa ji te loolu muy dafa bëggoon wan murit yi ne leen euh, du mën a ñàkk pour ñu xam ne jaayante boo ko defee ma noppi mu am wa amwaaluhum ginnaaw laaju ñu tuur rek kon alal ji moomuñu ko sëñ Tuubaa ko moom war naa mën a yomb loolu kon mu doon loo xamante ne tey jii kuy soññee ci yoonu murit ci loolu ngay sukkandiku loolu kon infaax wan nañu ci yoon woo xamante ne tey jii euh, lu am solo la li may tëjee soo mu ko nangulee dama ko xaw a fàtte tuuti sax waaye damay fàttali wenn waxtaan mu suñu am laat bu gàtt la euh, mu doonoon tëbaski 1988 defe naa mois de juillet la woon nga xam ne daanaka euh, ci waxtaan yi mujj la xëñ na ndax 89 la defe naa la la la wuy ji suñu borom waaye 88 waxtaan wi gàtt na moo dama koy jàng barkeeloo ko ci rek asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyu naa leen yéen mbokk yëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di jéggalu itam sunu waxtaanu tey nag u gàtt rek la mën a doon warta weesu it yàlla mi nu moom ni muy jëflanteeg nun ak ni muy doxale nu xam ci aslëf ndax mu mën noo dolli xam fu nu jëm ak lu nu war a def yàlla moom mi ngi doxale rek ci xudratu ak iraadatu kattan ak coobare yàlla rek ko am te ci lay jëfandikoo ci lépp lu muy jëfandikoo وانا يتني يدبر الامر من السماء الى الارض كون ملني لو غيس رك مو يكسي في تي كاو لاكو دوغالي واتيكو غا دافا واخني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما غيناو جوروم ياري اسماني بيمكو بيندي دافا بينديت ay kemam ci suuf yu tolloog moom mbir yépp nag di wàcc ci sa diggante ñoom ñaar kon ni ñu koy wàccee war nañu koo xam ba xam ni ñu sàkkoo ni mu koy wàccee nag moo di asamaan yi juróom-yaar la asamaan su ne àlluwaa nga ca àlluwa ju ne jaamub yàlla bu ne am nga ci ab dikk ci lu ne ba àlluwa yëpp àgg waaye nag juróom benn alluwa yi moom mu daal di am lu mu ci wax li mu ci wax moo di li kulli ajalin kitaabun dig bu ne dig bu ne am na téere yamhu llahu ma yashaa'u wa yuthabbitu yàlla dana ca far lu ko soob saxalaat ca leneen wa indahu ummul kitaab yi moom mooy juróom-ñaareel bi lenn luñ ci xas bidd dara dootu ko toxal léegi nag mu teg ne yamhu llaahu maa yashaa wa yuthabbitu mm-hmm. mu ne loolu nag yàlla du def dara ci neen mm-hmm. lenn lenn lu ne mm-hmm. dafa am lu mu koy defe lii mu ngi la koy defal ci nga sant ko lii mu ngi la koy defal ci nga tuub mu jéggal la ko lii mi ngi la koy defal ci nga ñaan mu nangul la ko lii mi ngi la koy defal ci nga sàkk sarax lii mi ngi la koy defal nag ci nga am kilifa gu mat kilifa nekk ci ginnaawam te lu mu lu mu wax nga def ko kon nag sant war na nu koy def dëgg la naam tuub war na nu koy def dëgg la naam sàkk sarax war na nu koy def dëgg la naam ñaan war na nu koy def dëgg la naam waaye li wër naal li wóor daal mooy nanu moy ci sëñ Tuubaa te bañ ko boole dara moom mi nga xam ne baat bu mu wax ak lu mu bind boko tekantale da na la wo ci ngene ci umul kitab bi la joge jere ngeen jef balen ma jere jef ma sha allah jere jef serigne yusufa ci lu am solo lolu ngay wat lepp rek di wane njangalim serigne abdullah dayo bi mu toll ci mana yar ak defar japp na ne ay wéttaloon ay wettel ngeen won ci mom mom nak wettel wu ne day bëgg mu niru ko sëñ Blaat day dox doxin woo xam ne ku amul jom amoo fulla doo mën a ànd ak moom. yaakaar naa ñemeloo na leen lool ba ngeen ñemee doon murit ñeme itam infaq fi sabilillah jooju ngay wax. Mhm. ñemee gën a joxe. Mhm. loolu xamees na ko ci seen i jikko. te lépp ci njàngaleem la. Mhm. màggal itam. sëñ Blaat da ko fonkoon lool wax ca lu ne. jàpp naa ne ki leen gën a nandal gën leen cee jóob ba nii ngeen di màggale ñu bare bari leen ci roy. jàpp naa ne ci moom ngeen ko jànge dëgg la. kon da nga dellu si tuuti rek ci sëñ Abdou ak màggal ak seen digg ak moom ak màggal soo noppee nag kàddu yu soññee ci bis bu mel ni ku toll ni sëñ Abdou ñu koy fàttaliku ak lim jariñ lislaam ji jariñ ko jullit ñi jariñ ko murid yi ku mel noonu bisam di ñëw ban taxawaay la ci am murid war ngir dellu njukkal sëñ Abdou Lahad. jërëjëf euh, sëñ Abdou euh, màggal moom euh, sawar naa ci wax ci loolu ndax sëñ Abdou Lahad moo nu xamal màggal. Hmm. ndax defe naa bu ngeen di fàttaliku. Hmm. am nay at yoo xam ne da nga daan dégg sax RTS journaliste RTS di wax ci màggal naan retour d'exil naan mooy sëñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi ndax boobu xel mënut a jàpp ci nit ñi nii euh, nit nitu yàlla dem ci exil tubaab bi yóbbu la bis ba ngay dem nga ne mooy sa bisu feet boobu nit ñi xamuñu ne euh, noonu la loolu la màggal gi ëmb euh, waaye moom daf ñu cee teel a yee maa ngi fàttaliku dañ daan def ay banderole yu mag yi ñu daan bind nga gis di mokal mu naan la magal gi moy bis bi seigne touba xëyewoon baye ak njabotam ak talibem ak lepp dem liggéeyal yalla rek tax ko jog te jamono yam koy def sa su ñu rek ci yalla fo xam ne ñu bari bu fa yeggee noppalu wala wacc lañu defé na mo war way duñu defé na sof ci dara xam lolu bu la koy jangal kon dem gi daf ñu mu ne nak yàlla suñu borom dogalit bis bu saa bu bis bi de euh, dikkaatee muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nattu yi ñu ko doon teg nattu yi yees diisaat diisaay boo xam ne mooy raw bu ko jëkkoon loolu mu ànd ko ak ñoom ba ci juróom-ñaari at yi yi nga xamante ne moo nekk ci géej gi waaw loolu xam nga si laat moo ñu ko doon wax euh, nattu yooyu nag yàlla mi ko ko doon teg moo ko nattaleel bis bi bu doon bisum nattu waaye itam ci la ko teggilee nattu yi waaye moom ba muy dem la màggal la ci sëñ doon wax dama naa defe naa sëñ Saliou ñëwaat na leeralaat ci lu bare mu doon benn benn baat kon sëñ moo ñu jàngal màggal moo ñu waxoon ne màggal mooy seen feetu indépendance xam nga indépendance dañ ko waxee sax xam nga nit àdduna yi dañuy yaakaar ne dangay ngay jéem a xëccoo bésu saayir fekk na euh, boobu ñun ñu ngi def exposition di leeral ne indépendance su jullit mooy li dox sa jëng li dagg say jëng sa digganteeg ibliis sa digganteeg fa nafsu wal xalqu wa seytaanu xat faraxoo min xas di durriyal yi dunya taxat salama xam nga daan nañ def banderole bu ñu daan bind nabiyuna qaadalii mastabiddu bihi ma al jamaati fadlan min mazayahu xam nga loolu jaadu na ñu yëkkati suñuy loxo wax ne bisu bi suñ Tuubaa fukki fan ak juróom-ñett ci la ñu moomee suñu bopp ci la ñu muccee ci seytaane ci la amee kilifa goo xam ne dox na suñu diggante ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam dagg jéng yi xat faka kabla xat basa fadla fa duru wala wa nafu jaaye déggin woowu moom sëñ Ablaye moo ko def ci moom waaye yamu ci euh, màggal moo ñu jëkk a teral ci màggal ba jàngal ñu ni ñuy waajee màggal ndax at mi ñu liggi doon liggéey Aynu Rahmati 1982 83 Aynou Rahmati dafa am liggéey bu mu ñu ci santoon mooy chantier bi bi daayira étudiant murid jëkk am ci Touba. nga xam ne boobu tuddaguñu Hizbut Tarqiyyah mooy biir Aynou Rahmati boo ci duggee am na benn kaas boo xam ne dañ ko tabax béton la ci biir mu am ay xasida yi nga xam ne ci la sëñ Touba euh, waaye ci euh, teenu Aynou Rahmati wa fajar naa laar dama yoonaan ak alhamdulilahi wax doowu mu ñaari xasida yooyu ñu traduire ko anglais traduire ko français xasida yoyu biñ ko liggéeyee ba sànc bi paré dafa ak magal gi jege ta bobu ñun magal sëñ Ablaat mo ñu daan dalo ndax keur sëñ abdou keur sëñ abdou Baara gi ñu daan nek sax ah lépp lu fa daan fekk sëñ Ablaat kon lolu it ñu xam ne ñun moom euh, bañ juddo rek lañ tege ci loxol ki fi togal sëñ touba mu téye ñu it ouf ñu ba bisu tay mosunoo génn loxol ki fi togal toogal touba euh at momu ci la Sëñ Abdou Lahad waxee ne ah fas naa yéene de Touba gi kenn du leen fi dàq màggal euh, at moom it mu defee ko àll ju kare ndax yëkkati na six cent vingt mille teg ko ci loxol si aatu ne nag lii ma la jox nii yeneen yi nabiyun mursal téeméeri junni la ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ku ci dee joxel naa la dërëm boo ko boolee calculer ko defe naa da lay jox six cent vingt mille ah. ca boobu jamono. ca boobu jamono loolu euh, ay million ñu bëri la. Mm-hmm. yamu ci gileem mu jox ñu euh, diw mm-hmm. mu jox ñu boobu diw du ay bidon vingt litres mm-hmm. ba bërigo deux cent litre moo daan am yu mag yi euh, ci magasin Baye Alou Sylla la boobee <laughs> ak ceeb lu ne mu indi ko loolu ba mu ñëwee ci ñun ñu ñu màggal màggal goo xam ne man ba bisub tey wax dëgg yàlla xam naa baatin baa yéeme rek mais ba tey màggal gu ñu neexee man dama yaakaar ne xëy na àjjana lañ koy amee loolu loolu yéeme na euh, bis boobu loolu ba mu amee ba noppi ñun bañ delloo ndakaaru ndax boobu amaguñu barab Touba ndakaar lañ amoon barab muy daayira étudiant bañ dajee waxtaan dañ ne ah déwén de nañ teel a waaj ba organiser wu noo xam ne sëñ Abdou Lahad ñun ñooy ñëw jox ko addiya waaye moom du jox lam ñu joxoon ci lañ dem commencé créer ay étudiants yoo xamante ne daara jën njëkkoon am ñeenti junni lañ daan fay luyaas muy jafe euh, nga xam ne weer vingt mille francs ak moromam day mel nii euh, nattu boo xam ne dara gënu ko rëy nga bëgg a waajal màggal ñu commencé na nag dañuy waajal génne ay commission daay na ñii ñoo yor commission viande nga xamante ne dañuy dajale seen dërëm dërëm ba mët nag wala ñaari nag wala ñetti nag daal di koy dem moom la ñuy def ci magal gi ñeneen noonu jël ci commission riz ñii commission sucre ñii commission huile di ko def noonu ku ñu dajale dërëm dërëm dajale ni day pare ñëw nag ne seen blaat nag yi ñoo la ko jox wii xam nga wala kii xar yi ñoo la ko jox mën a déedéet nag dayeen waa bëgg ndax du ma ko nangu dañuy and naw and tak tak mom koku koku jaar na fa ñun di formé ci lolou ba ji euh wax deug yalla bo jëlé daw liñ jox señ muntaha mi kon lolé señ abdoulat lolou muñ jangalon ci la juddo ndax daw magalu daw jox nañ señ muntaha juroomi téméré xar jox nañ señ muntaha juroom ben fukki nak bu and ki gëlem te jotewul dara diko togg diko xam nga lolou kon lolou liggé bob mi ngi dox te dañ daan soññante di wax ne dina mujj doon loo xam ne ay gétt yoo xam ne kenn ku ne ci ñun say doom wala say sët dinañ ko def di ko indi ci màggal kon loolu defe na jàngale màggal la boo xam ne sëñ Blaat jàngaluñu ko rek ci wan ñu ne màggal nii la waaye daf ñu ko dundloo ba noppi it xamal ñu ne ñu màggal rek mooy bis boo xam ne yow mal xiyaam dina dekki mm-hmm. ndax euh, àjjanay bani bani Israël jox nañ ko sëñ Tuubaa mm-hmm. addiya mu delloo ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci teraanga mm-hmm. ne ñu toppoon ci sama ginnaaw di ma liggéeyal rus naa yowmal xiyaam yu dëkk kër goo xam ne taxuñu woon ñu bind ko mm-hmm. kon sëñ Tuubaa ngoo murit bu ne it nee na jàmbat ga fi lu ne ba mu des mbiri àllaaxira ah. sëñ Blaat moom wax na loolu pour wane ne xoolub murit di yaakaar ne sawara la jëm ku def ku ne kooku ñun nañ dajale nday ne am na fële kuy gis murit daal di wax ne kii sawara la jëm kooku dañu dafa war a yéem àdduna sépp ñu ne kéemaan a ngi nii xam nga ndax dafa dem ba wan gaay ne leen nañ am jom te xam ne gor soo mës a gis mu dee fi barab te rangaa ko fa rey murit yi boo leen di soññ doo leen soññ ci ragal loo leen naan sawara nga jëm da nga leen di soññ ci ne gor soo mës a gis mu dee fi barab te rangaa ko fana rey te sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo ñu teral mm-hmm. am na bis nee na yowmal xiyaamatil akbar bu nit ak jinneeg malaayka teewee mm-hmm. ah yàlla suñu borom daal di wax ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam yéen ah, daal di ne rasulullah sallallahu ne cëpp mm-hmm. ne lan bi yaawu yi ak mursaloona yi féete leen ma fii yéen alxuraan wax na ma seen mbir saaba yi yéen ma fii maa ngi a àndoon yéen ñi nekkoon boroomi jamono nag jóg leen ngeen natt seen àndaat ba xam dina buur wala du buur ñu ne ñuy jóg di ku ci sa andar bour ñu yëkkati la dina tag dina tag la tagg nit ak malaayka nit ak malaika ñëpp gis ko ku ci sa andar baña bour dina tanc ah, ba nga ne gatch gi de suturalon ma yobu ma sawara moma ma gënal lii may def ñu door laa cëppeel jall ci sama morom nak nag sëñ da bëggoon bu ñuy lim ba ci ci aw kon xam nga ci li doon wax ne ci euh, ñi mom jamono ci la bokkon waye mom bokku tak ñi ci dess mu ne bu ñu agsee ci turam mom bala mo jog neena ñiko yalla bolel muy njabor gi muy mouride ñooy jóg par kenn di def la ñooñee doon def di def la ñooñee doon def def la ñooñee doon def bañ ne moo ana ki nga xam ne bi ñu tuddee aw turam ak léegi waa këram rek ñooy jóg di def jëf ji te moom jógoo ko mu ne tur baat boobu rek nee na lu mu mës def di ci sonn baat booboo taxoon te nee na am na ko ba noppi nag ku bokk ci ko ko amal nag nee na nga xam ne féete nga ko fenn mm. kon tey ji jëfe ndigal bàyyi tere mm. mooy tàmbalee duy sa àndaar ngir bu boobaa nga ne sëñ Tuubaa teral nga ma de waaye fas naa yéene li may doyadi doyadi lii ma am a kës néew sama kookos ndox sii def naa ko ci sa njañseel la ko ci bis bi loolu dafa baax trop ci ci ci ci bés bu mel noonu euh, moom moo ñu jàngal loolu euh, li may li may li may li may tëjee mooy dafa mel ni man dama jàpp ne Sëñ Abdou Lahad dafa am euh, dignité bu mu jàngal murit te ñu toll ci jamono joo xam ne nag nañ ko jël def ko suñu rësumaan ndax euh, murit kenn amul njëgam sëñ tubaa rek ko am sa ngor gi nga jaay sëñ tubaa mënoo wëlbatiku fu ne nga ne naa ko fi tayle ngir bëgg dara ci àdduna kon sunu digganteeg sëñ tubaa dañ ko war a téye foo xam ne bëñ bi mujj ci bëñ yi ñu ko wax roog seen ku la ne ngaa ngal lànkal loolu jamono jooju lañ toll. Mm-hmm. ndax nit ñi àdduna day tax lu ne ñu nangu koo wanteer. Mm-hmm. te loolu amul solo. tey jii politique bi sax Sëñ Blaat demoon na ba bëgg salte mu wan murit yi ne leen politique bu mu leen yàqal seen digganteeg Sëñ Tuubaa seen digganteeg Sëñ Tuubaa moo ko féete kaw. Mm-hmm. ku mu mënta bàyyiloo politique it wane ne sama diggante Sëñ Tuubaa moo féete kaw. ku mu mënta bàyyiloo syndicat it wane na sama diggante Sëñ Tuubaa moo féete kaw ndax. yooyu yëpp dafay ay xeeti taqalikoo wala tafarraxoo ji muy wax dafay ay xeeti taqalikoo yoo xamante ne àdduna moo ko indi te it dafay ñëw yàq suñu pas-pas da nga gis ñaar ñu bokk sëñ Tuubaa wëlbati ko bañ a bokk parti tax ñu mën a jàkk jàmmaar loo ne dañuy reyante loolu moom ku xam dara du ko def ku xooloon badar laa tajidoo xaw man yuminuuna billaahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna man haadallaaha wa rasuulahu walaw kaanu abaawahum aw abnaawahum aw ixwaanahum aw ashiratahum قال لك اولئك كتبوا في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه من لول موي ملوك عن مريد أه، سيدنا ابو بكر جمرنا دوم بدر دغ واي نغما تخ اك باس باس واي دو افير بوليتيك دغ سيدنا عمر ندياي ابو حذيفه بايام تلول لي مي جانغالي ري موي وانا الاسلام مو غنا دغر كلمه الله هي الهنيه مو في كاو لم tay ji lolou bo lañu ko seigne touba ngay wulou di ko lu doye di dila la di la di la sa lolou lolou ko xam du ko def mouride ni nañ gën boole seen ci lepp ta xam ne euh, mbokk gu jëm fenn ak and go ne jëm na fenn bo xam ne euh, do ngeen and bu mu yag nara taggo moy and bokk yaakaar seigne touba bu dee màggal gi nak mom magal bisu seigne blad bi man dama ci ndokelat mouride rek ne blad Euh, defal nañu loo xam ne ñun mënuñu koo fay waaye liñ koy fayee nag man xam naa ne moom mësta yittewoo ci boppam dara lu dul nee na lu ma fi toog diir ba fi toog yëpp du ma leen wax mu Abdoulahat nee na sëñ Touba nee na rek laa leen di wax lam ñu doon wax ci sëñ Touba nee nag nañ fexe ba mu ne ci ñun loolu nañ fexe ba mu ne ci ñun ci bëgg lu baax di yéene lu baax di wax lu baax di jëf lu baax waaw ku yàlla suñu borom mën loo nga mën a ñëw saafonteeg njabootam gii taral leen ziyaar leen jël sa alal addiya jox leen feddaliwaat sa kóllëre sa diggante ñoom nga def ko boo nekk ca sori sa it la nga ca mën ci lu baax nga def ko loolu te xam ne yàlla suñu borom moom foo defee lu baax rek mën naa agsi ci moom incha laa ne woon moom naa ko daa ko ci seere tey sant nag commission bi ci liggéey bi ngeen def ndax murit yëpp la war ñun rek ñun Hizbut Tarqiyyah waroon nañ ñu def liggéey bi ba mu àgg mu laaj ci ci investissement yi ñu def ko mom ak it daani jëbbal ko gi euh, nga xamne ne mooy Cheikh Abdou rawati na sax jëkk ko jëbbal Cheikh Mamadou muntaha ndax xamna tay su ma won ku jitu ci njabootu Cheikh Abdou cheikh muntaha lay tudd tekki seen siidi loolu kon ñu ngi leen di sant di leen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne Youssoufa ci waxtaan bu solo nga xamne indi doon ko muy waxtaan mu fess dal ak njariñ ñu gën ci rek ne serigne xam-xam la kat la bu mag bo xamne kep ku gongi ak mom da nga ci jele lo xamne ne na defar aduna ak li ci biram lepp tabarakallah kon bokk yi li moy jotaay bi nga xamne ne lañ leen lor jele ko ci daara xisbu tarqiya moy mbolo mo xamne ne serigne abdullah la bu ngeen deglo waxtan da ngeen xamne serigne abdullah nim jangale tarqiya lepp diine la da doon tatbiix ay ayat ak hadis ci seen biir di wax ci wolof kon Hizbut tarxiya bo len gisee ak seen col yoyu ni nga miinee aaday nar japp ne kuy dundu diine sangam la wara a sol na la bir ay nité ngi ni ñuy dundu sunna di ay murid sadiq te njàngalem sëñ belahan moko def ci ñom ndax lim len dan yare lepp alquran la ndax sëñ Blahat xam ngeen digam ak alquran yalla dan tibbu di len jox kon bokk yi li moy li nga moom lañ leen jëreli woon fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ànd koog euh, lañ nata saxaafiya bi nga xam ne ñoom la sëñ Sidi moom sëñ Abdou Lahad di liggéeyloo ci mbirum sëñ Abdou di ñaanal sëñ Sidi Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ko wér di ñaan suñ borom may nu kattan ak euh, tal ak fekke ba nu àgg ca bis ba te noonu ko sëñ Yusufa waxee buñ ca àggee kenn ku ne mu góor góorgóorlu ba sëñ Abdou Lahad li mu bëggoon ci nit ñi te mooy jub ak baax ak tege ci yoon kenn ku ne fexe ba góorgóorlu ci loola waaye itam nag ñu jéem fay naar bi xorom si te kenn ku ne lu mu mën ci alquran ak xasida mu jàngal ko sëñ Abdou Lahad addiyal ko ko Sëriñ Tuubaa loolu dana ci bëgg loolu mm-hmm. kon mbokk yi nii lañ leen di tàggoo wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu